Mustafa santal dayob cant yaa fi gën amul ku lay werante te ka ngaayoo ci Mustafa Cheikh Mustafa santal dayob cant yaa te ka ngaayoo ci amul kenn ku lay xiiraati luum nan ci mustawa te dal nang nelaw yaa mustawa ñépp mokk nañ amul kenn ku lay xiiraati luum nan ci mustawa wala yaara yum may yaay borom xaas ni mustawa muhammadu abdallahi ax nii bi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 ci waaw mbaa ci waaw waaw mbaa waaye fexe nañ ba jàng fa ñeenti téeméeri kaamil ak ñaari kaamil jox ko addi eh, ku ki loolu nag ñu la koy seeral Mbàkke di la ñaanal nga gudd fan waaye di ñaanit nga ñaanal ko moom El Hadj Mor ak mboolem njaboot gi ñu nekk ci réew mi ak ñekk bitim réew ñëpp liñ bëgg ci liggéey bi sëñ Tuubaa bi suñu dafa leen ko ànd nañoo ak section bi nga xam ne nag sëñ Cheikh Ahmadou Mbacké moo ko formé woon mu ittihaadu atbaayil xadim li taxawunu wa tamasuku bi diinil xawim mooy ci njiital Idrissa Ngom ànd ak njaboot gi yëpp teew si nañ ci bis bi jël ñaari kaar wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. asalaamaaleykum yéen yow sëñ El Hadj Mor yaag bokki Gambi yëpp. di taalibe sëñ yene Gambi di njabootu Cheikh Mouhamadul Moustapha ga nekk Gambi bi nee na gis na leen woote na ci yàlla ci sëñ Touba ngeen nee gis na leen mi di sant bu baax mi ngi di ñaanal bu baax leen fàtte benn yoon waaye woote bii nag day woote boo xam ne Cheikh Moustapha ko woote woon way wa wax ne ci sunu morom saa bu egsee woo naa murid yëpp Touba ngir nu dellu ci yàlla sunu borom nee na woote bii jëmmi yàlla la ci sàkku ak ngërëmal yàlla di ko sakkul képp ku ñëw si te sikkuwul da nga ko ci ku ñëw ci woote bii da nga ci am ngërëmal yàlla ak yërmande yàlla ak njëggalug yàlla loolu moo tax mu woote nee na woote bii daf leen woo ngir bëgg. nu maase dellu ci yàlla suñu borom ci tuubal ko ak dellu ci moom ci jàng alxuraan ak xasida tudd yàlla waaru ci jëfiini yàlla yi ànd dellu ci yàlla nee da ko lëkkaleeg bis bi sëñ Tuubaa ñi bisee Tuubaa muharram ngir gën leen a waar ngeen xam ne adduna du kër gi mooy tool yi fii sëñ Tuubaa ne foofu mooy kër ga na ngeen ci waajal ko ci jëf lu baax jaamu yàlla bu wóor liggéey bu wóor sellal bu wóor bis bi da ngeen fanaane jàng alxuraan wala xasida wala ngeen yor seen kurus di di sikkar di tuub ak julli ci yonent bi loolu mooy bis bi bu ngeen ko defee bët set da ngeen ci am lii nga xam ne moom lañ ko ci dëxal muy njëggal ak ngërëm ak xéewal yu bëree bëri asalaamaaleykum wa rahmatullah Ahmada Abba